xad xaala Muusa xaadimul xadiim liman laa taxaddumil xadiim yaa saayili an sababi tansiim yawma xuruuji seyxina alxadiim min daari tuddaa bi Mbakke Baari بإذن خالق البرايا الباري خرجت يوم سبت سام المصر لخدمة المختار في شهر سفر خرجت يوم سبت سام المصر لخدمة المختار في شهر سفر ترحب موجنيك نتجمي ak fukki at ak yett lim bi léew su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeet ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti su ma dégloo tey ma dellu yeet ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti ku mbir day laaji xam xamul laaj leen rum ki leen amal lu ngeen amul gumba yi njaacaar laa ngi tee ngeen newe damit man ku xamul laajul ku xam xaw ma gumba yi njaacaar laa ngi tee ngeen newe damit man ku xamul laajul ku xam xaw ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dal bu ko xul fulaayam na njéema topp yàlla toppi ndigalam te daw seytaane xamee njugalam te jéema rijaalu leehi te jéema kullu jaanin leehi alxayru fi maxtaar wal لا في الذي نفوسكم تختار قد جاءكم من الإله النور بامبا جاغو كروال سندنور بامبا جارك من يلا جرا في البر والبار ونال الدرام seytaan banneex ak bakkan ak duniyaa ku fetal daane nga noon yu ban yaa bamba jaar ak ñoom nafsi boobee sëriñ sankona fi absi xaataltu fil bari la wax seytaana kap kabo xayral waraaw taana nobal ba ngaase ba xeex ca mbon maa ko fa doon allahi déglu na wax la la waral màggal ga déglu ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Cheikh Bamba reel demal nga ma wax la loora màggal gaawa nga xam ne Cheikh Bamba reel taarix ba xaama jay sasin moo yaat ma moo di lalu sëriñ Basiiru mbég ma ne dogon kon dem gi wolof nasra te kon billahi ñépp dem ñi reen borom Tuuba waa nee dem gi bisu màggal kon wolof nasraan kon bileehi bileehi ñépp dem ñi reen Bamba dal ñaan ci barkeb jiili Cheikh Bamba dal ñaan ci barkeb jiili ne yàlla maay chef yi kull jiili Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ne officier des Nations Unies. Depuis le 30 août, dans ce mouvement de la libération du peuple gabonais et de la République gabonaise, je suis le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Mayumba. au nom du président de la République, le général, au nom de toute la communauté chrétienne et surtout catholique au nom de la communauté musulmane au Gabon, au nom des populations locales de Mayumba, au nom de tous ceux qui reconnaissent et pensent aux valeurs de l'éminence Cheikh Amadou Bamba. au nom de toutes les populations de Mayumba, je voudrais vous adresser la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Je voudrais quand même dire que les temps que nous vivons, nous les devons à Dieu. pour avoir donné à notre ancêtre le chèque, la force, malgré tout, de venir jusqu'ici, volontairement comme involontairement. Involontairement, parce qu'il était sujet, sujet euh, du pouvoir de la domination étrangère. Volontairement, parce que son œuvre, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrivée de cette caravane. Et à ce titre bien précis, je proclame l'élévation au plus haut niveau de la considération humaine, de la dignité africaine et du Gabon, de son éminence le cheikh Amadou Bamba alors je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au milieu de nous en terre de Touba au Gabon à encore une fois bienvenue chère famille Bonjour, monsieur le colonel. On est arrivé à Mayumba hier un peu tardivement, mais euh, on est venu avec des cœurs pleins de joie. À ma qualité de président de la caravane sur le traces de Cheikh Bamba au Gabon, qui a comme dénomination la caravane de Mayumba. Euh, on vous salue au nom de chef de délégation qui est Serigne Bassirou Mbacké, le fils de Khalife général des Mourides, ici à votre côté. Et Cheikh Mamadou Mbacké, qui est aussi son frère, qui sont venus à Touba. À son côté, Serigne Cheikhouna Bousso, que son père, Serigne Fallou Bousso, est l'initiateur de ce projet, la caravane de Maïmofa Serigne Fallou Bousso. Et à son côté, Serigne Cheikh Khadim fal qui est aussi venu de Dakar pour accompagner cette caravane. Et il y a beaucoup aussi qui sont présents ici, qui sont venus, à, qui sont venus de Dakar, mais les organisateurs de la caravane aussi, ils, sont ici présents. Mais dans la communauté mourite, si on présente le chef de délégation, c'est que tout le monde se sente quand même bien. Parce que je me rappelle euh, quand président Bongo nous a donné donner les possibilités. Après avoir vécu très longtemps au Gabon, moi-même j'ai fait une trentaine d'années comme chef de société à Libreville avant d'être le président de cette caravane. J'ai venu ici à Maïmbe depuis 1995, plus de 30 ans. On vient ici pour s'accueillir à la mission Sainte-Odile. Lorsque le père Moro était là, on le connaissait. Donc aujourd'hui, Mayomba est comme un terre d'exil chez les Mourites. Je rappelle une phrase que Cheikh Ahmad Bamba dit laka shukru wa minni wa raqibun atidun fil jazirati mayumba il remercie son Seigneur et il prend témoin les anges qui sont sur ses épaules parce que il n'était pas venu en compagnie de ses saints donc c'est cela seulement qu'il prenait comme témoin les remerciements de son Seigneur et il disait quoi qu'il arrive il supportera, toutes les épreuves donc euh, il y a de, de, de cette côté Madame Ikapi Michel, qui est le coordinateur de la caravane de Mayumba extérieure. Il y a aussi M. Badrasen, mais Mme Assabousso aussi, qui travaille euh, sur le côté euh, au niveau du Sénégal et à l'extérieur, ici au Gabon aussi, qui, qui, un très grand travail. Euh, il y a aussi d'autres journalistes qui sont venus et des femmes. Et... Ah, Sohan Botor est la coordinatrice de Dakar. Elle est de l'association des juristes du Sénégal. Elle est venue en plusieurs reprises ici à Mayumba pour s'accueillir à, à, la mission Sainte-Édile, là où le lieu d'exil du chef pendant cinq ans. Mais on, nous remercions l'abbé ici présent, à ah, Monsieur le maire, Monsieur Pascal, l'abbé Pascal, qui est ici présent, et l'archevêque de Mouila aussi, l'évêque de Mouila ici, qui était il y a deux semaines à Touba chez le Khalif que vraiment nous portons dans, notre, dans nos cœurs, nous tous, nous, nous le considérons comme l'un de nôtres. Et monsieur le maire adjoint aussi que vous avez voulu qu'il soit présent aussi à Touba, qui a abattu vraiment un travail vraiment très, grand pour nous. Nous remercions aussi monsieur le ministre de Tourisme, qui l'avait accompagné. L'ambassade Sénégal aussi à envoyé... Le, Son chargé de mission aussi, il est ici présent à côté. En tout cas, on est, moi je suis très content, c'est pour ça je n'arrive même pas à formuler mon discours. Mais nous remercions aussi notre frère, M. Pontalier, qui a travaillé aussi avant que vous soyez là. Il a, on l'a invité à plusieurs reprises au nom de Mayumba, qu'il est venu représenter la, la peuple maïsien. Donc il y a aussi, euh, comment on dit, en tout cas, je pense que je peux m'arrêter là-bas. Euh, pour vous dire en tout cas que nous sommes très contents d'être ici avec vous. Le calife, euh, le représentant du calife va donner les mots que M. Baydambay va traduire. Comme ça, vous allez comprendre le message qui est venu du calife. Mais nous, nous avons introduit, avant que vous soyez là, une lettre pour réclamer, ne serait-ce qu'une parcelle de terre que nous-mêmes, nous pouvons bâtir le projet qu'on a, qu'on a voulu ici à Mayumba. Mais lors des, de, lors des visites dernières de, de chef de l'État, il nous avait promis qu'il ferait, il ferait tout le nécessaire pour que les Mourites aura cette place. Mais le ministre a donné à, à Touba vraiment une information très, très, très, très, je ne sais pas, séduisante pour nous, en disant que la balle est dans votre camp, parce que le président a donné vraiment l'instruction pour qu'on nous donne ce, ce terrain-là ici. En tout cas, je vais, je vais mettre bref parce que la, la journée est très courte. Nous, on est là de maintenant jusqu'à demain. Le reste, on le finira euh, au lieu de Sainte-Odile, là où l'archevêque va nous recevoir tout à l'heure. Comme ça, on va, tout le monde va prendre des paroles autour de rôle pour expliquer le projet qu'on a ici à Mayumba. Il y a aussi l'association des jeunes de Mayumba qui est représenté ici, qui est venu avec nous ensemble, parce que nous savons qu'il est ici parce que nous savons que Nous tous, avec l'âge qu'on a, peut-être on ne vient pas. Lui, il travaillera aussi avec les jeunes mourides qui resteront ici. Je pense que je vous remercie. On va remettre le calife, il donne. OK. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement euh, euh, montrer un tout petit point sur ce que nous savons, nous, que vous connaissez certainement profondément euh, sur euh, euh, voilà, sur, sur, sur l'élite dont nous parlons, euh, je vais vous demander de suivre un peu. C'est que euh, les populations de Mayumba euh, et du Gabon savent sur notre, euh, notre héros. Alors, ici, c'est un petit point sur l'histoire euh, sinon inaperçu, sur l'histoire du chèque. 1895 à, 18, à 1902. Arrivé en exil au Gabon, précisément à Mayumba, du grand, parmi les grands héros africains la résistance coloniale. s'agit du cheikh Amadou Bamba, éminent homme spirituel sénégalais et combattant déterminé de la liberté des peuples et des nations, digne de reconnaissance et de célébration. Originaire de Touba au Sénégal, il prônait la spiritualité dans la foi musulmane et le combat pour la liberté durant plus de la moitié de sa vie, se donnant comme sacrifice suprême par la longue expérience de lutte et par ses idéaux chez les Mourides, il est célébré à travers le monde et à Mayumba, au Gabon. Enfin, le tels que euh, les communautés euh, musulmanes et sénégalaises, est le promoteur du tourisme religieux à Mayumba, où une caravane arrive chaque année ces derniers temps. Après plus de sept ans d'exil au Gabon, il repartira au Sénégal, son pays natal, en passant par l'embarrainé. Alors voilà cet aperçu-là que je voulais vous offrir, euh, euh, que, que nous savons, et nous savons encore que vous en avez plus. Alors, nous aurons besoin, encore une fois, de votre expérience historique euh, sur notre héros pour que nous puissions écrire des pages et des pages, parce que nous écrivons. Merci beaucoup. Euh, bonjour, euh, Serigne Bassirou Mbaké, le représentant du Khalif général des Mourites, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne. Parmi cette délégation, on peut noter l'éminent Serigne Cheikh Khadim Fall, un petit-fils de maam Cheikh Rafal, son petit frère Serigne Djili Fall, Serigne Cheikhna Bousso fils de du feu Serigne Fallou Bousso Gabon l'initiateur de ce projet monsieur les organisateurs de la caravane de Mayomba son éminence monsieur le représentant de l'ambassadeur du Sénégal au Gabon monsieur l'évêque de Mayomba monsieur l'abbé et tous les dignitaires ici présents. Donc je vais traduire en Wolof ce que vous avez vous de, de, de à l'endroit du représentant du xalif mu ne bu sañoon nga wax ko dara ca fa nga jóge donte ñoom am na luñ ci xam waaye yéen li ngeen ci xam moo ëpp waaye bi mu jógee moom en tant que colonel en tant que délégué en charge de la commune de Mayomba en tant que koo xam ne ni jaar na Nations Unies nee na tey officiellement yëkkati nañ sëriñ Touba ci grade bi gën a kawe fii ci dëkk bi takkal nañ ko ko ginnaaw takkal nañ ko ko nag te yéen yéen yéen lañ koy xoole faaw mu wax leen ko ba ngeen dégg ko grade boobu daal bis ni ki tey bi gën a kawe mm. takkal nañ ko sëriñ bi nee na nag lim xam ci sëriñ bi bari na bariwut xam nañ ne mooy seen héros ñoom bu ñu xool nit ñi ñi ci gën a kawe moom lañ ko jàppe ñi mag ñëpp muy les plus grands il fait partie des plus grands nee na sëriñ bi dafa ñëwoon ngir xeex ak ak noteel muy colonisation ci lañ ko fa indi exilé ko fii mu doon xeex ngir nit ñi am liberté xam nañ ne sëriñ bi ñëpp ñu ngi koy topp fonk nañ ko fépp ci àdduna bi waaye fii tamit noonu lañ ko def yooyu mu doon xeex di ko muñ li ci ëpp fii la ba ni mu fi jóge jaare làmbare ni ñibbi waaye nag bu sañoon yéen a ko ko gën a xam ngeen wax ko ci lu mën a yóbbuloo waaye day mel ne sëñ euh, ni yëf yi demee li ci ëpp xëy na dana am fuñ dajawaat dañ nga ko gën a mën a wax waaye ñu bàyyi laa kàddu gi say kàddu ñu mën koo ko jot. aleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp euh, di jot li kàddu kilifa gañ jóge muy xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadoul taxa ma ànd ak sëñ Mahmadan ak mboolem délégation bi ñu àndal bépp ak mbooleem eh, ñi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bu rafet bi ñu koy tàmbale sëñ Cheikhouna bu so ay rakkam ak mbooleem ñi mu ko àndal ñëpp muy liggéey bu rafet boo xam ne ñoom taxawal nañ ko waaye ñëpp lañ ko bokkal kon ñu ngi leen ñu ngi leen di wax ne ñook ñoom ñoo ànd tey jii ngir ñëw fii fàttaliku ko liggéeyub Sëriñ kilifa gi muy colonel ak monsieur évêque ak monsieur le maire ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax ci dalal gii ñu ñu dalal ci dëkk bi ni ko sëñ Cheikh Mbeng waxe léegi rek biñ ñëwee ñun <clears throat> ànd nañu ak xol bu sedd guy biñ agsee ci dëkk bi ci ay fànn yu bari muy ñëw nañ fi ngir nemmeeku si eh, fi sëriñ bi nekkoon di fi liggéeyal boroomam yu jaamu yàlla di fi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu suñ mbég mbégte mu rëy la def ñun biñ ñëwee ngeen teeruñu yéen tam mooy monsieur évêque ak monsieur le maire biñ ñëwee dañoo fekk ñu taxaw di ñu xaar dalal ñu nuyoog ñu bu rafet kon loolu ñu ngi leen ci sant loolu moo tax suñu xol gën a sedd ndax buñ ñëwoon ngir nemmiku si euh, barkeelu ci liggéeyub sëriñ bi ca yaatalu leen ñu kon it danañ xam na ñun def nañ lu neex ñun waaye nag bu ngeen ko àndee ak ñun day gën a neex ñun kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ah sëriñ bi nag. yàlla moo dogal mu ñëw mu ñëwoon fii ci Mayomba ci ñëw goo xam ne ah ci sababu ñi nga xam ne ñoo colonial bi eh, ci seen sabab gannaaw ci gannaaw sababu suñ borom nag tabaraka wa la ndax sëriñ bi eh, ñëw gim ñëwoon fii ay njariñ la yu bare bare bare bari moom sax wax na ko wax na wax na ko Cheikh Amadou Bachir ne ne ne tukki bi bu ñu nee tukki rek kon li ci ëpp mooy mooy fii Gabon ci ci Mayomba ndax sëñ bi da ko mos wax ne ko tukki bi de dolli kuwuma ci dolli ci ak ngëm am yum lim ne ko dolli kuwuma ko ci sëñ sëñ Basiiru ni mu ko waxee ci téeram bi nee na ma daan ne ko kon masdatta bihi fil xaybati isan mu ne ko kon na waa loo loo dolli ko ci euh, tukki boobu kon ginnaaw dolli ko ci li nga wax ne sëñ bi nee na daa daa di mooñ ne ko dolli ko naa yu bari nag muy am mahrifa maanaam xam xam suñ borom ndax loolu daraja ju kawe kawe kawe la mm-hmm. ne ko ak agg ci suñ borom ak gu wér ne nag ak ak ak yàqiin yoo xam ne am naa ko ci suñ boroom ne ko ak ay daraja yu kawe yoo xam ay daraja yu kawe kawe ba tey doole ko naa ko suñ boroom ne nag ak ay ak ay may yoo xam ne du jeex ba faaw ay may moom yëmul fenn kon sëriñ bi li bi nga xamee ne ñëw na fii mën nañ ne lii ma lim jëlee na ko fii jëlee na ko fii kon kon kon kon kon dafay mel ne fii suñuy tool la maanaam sëriñ bi liggéey na fi liggéey boo xam ne ba nëga ni ñi ngi koy jariñoo ca itam ah, li benn woykat koo xam ne kilifa la wax rek eh, ci ci ci ci ñëw sëñ bi dafa wax ne walaw saa maaraaman nasaara xuroojoxoo walakin na xoxtaara tafaru di lil bari wax ne sëriñ Tuubaa day bu ko neexoon lu génn loolu day mel ne colonel wax na ko léegi wax ne ñëw na ci xëy na ci coobareem mën naa ñëw itam ci lu coobareem waaye coobareem gi ñëwee mooy bu ko neexoon bu ñëw kii dafa wax ne la ko tax a ñëw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy biñ melee ne lu ko forcé itam maanaam moom moo bëgg a ñëw ngir am ngir ngir am lu mu wéetoo ci ay moroomam loo xam ne moom rek moo koy am moo mu ne tafaatu du lil bari loo xam da koy wéetoo ci ci ci ci mbindeef yi ca loolu yaakaar naa ba ñëwee ba naga baat boobu maa ngi koy dégg ñu koy wax muy sëñ Tuubaa amul moroom muy baat bu nurul woyof waaye di baat bu yaatu di baat bu rafet di baat bu diis kon ko kon sëriñ bi loolu bokk na ci li ko ko may nekk gi mu nekkoon fii comme Baye Dame mi nga wax ne kilifa gi da laaj ne war war nañ leen mën a wax dara ci sëriñ bi loo xam ne seen njariñ lay doon kon loolu dama koy tënk rek ci bi sëriñ bi jógee Mayomba ba ñëwaat Sénégal rek ab tënk bu gàtt rek lañ ci def muy muy ñëw na fii ci Gabon am na fi juróomi at ñu ko mën a waxe ba mu delloo àggale ab liggéeyam ca gànnaar ak ca jolof ca céyeen loolu di ay at yoo xam ne lu ne xajoon na ci loolu nekk juróom-ñetti at yoo xam ne lu ne xajoon na ci xajoon na ci maanaam duutu amati kër mukk xajoon na ci itam duutu woon dellu si ci Sénégal xajoon na itam yoon wi mu doon jot a taxawal muy woote gi mu doon woote yoonu murit muy mbooloo mi ànd jaamu yàlla ba àgg ca suñ boroom xajoon na ci yoon woowu tas ak yu bare bare bari kon liñ leen mën a wax ne sëriñ bi jëlee na ko ci mooy li nga xam ne waxoon na rek ne sama boroom day kum mat a bàyyee sa bopp la te doy naa ci firnde moom sëñ bi loolu waxoon ndax koo xam ne génn nañ la sam réew waxuma sax waaye jéem nañ laa sàkkal pexe ci ci ci jàkkaarloo yow ci ay fetal jéem nañ laa sàkkal pexe ci lakk la ci sawara jéem nañ laa sàkkal pexe ci sànni la ci ay barab yu wéet yoo xam ne wa ndimbalu suñ borom la waaye waaye mën mënoon na caa bañ a mucc loolu lépp nag ba ci muccee nag ba mu ñëwee senegal taxawalaat na fa yoonu murit woowu ma wax ba nëga ni yoonu murit ci bu ëpput senegalit it wenn benn benn lañ koy mën a méngaleel bu fa ëpput it naa ko doon loolu laa bu fekkee ëpp fa tam kon dañuy wax ne benn yoon rek lañ koy mën a méngaleel ci yoon booba tam dañuy boole yëpp yëpp yëpp ñu soog koy ñu soog a mën a tolloo baa ñu ëpp ko tuuti baa mu ëpp leen kon noonu rek la mën a demee kon kon loolu bokk na ci lim jële fii muy ba mu delloo la ca feeñaat bu loolu jàllee itam nit ñam doon defar ba mu delloo da ko gën a yokk ndax boo demee Sénégal la nga fay dégg ci ay nit ñu baax ñoo xam ne dañuy dañuy jiite am mbooloo di leen defar ci àdduna rek waxuma àllaaxira waaye di leen defar ci àdduna rek ñuy réussir loola kenn xamul nu mu toll muy développement Sénégal kon daa boo xoolee lañ fa sanc ci ay dëkk yoo xam ne ci ndigalu sëriñ bi la mat na ay ñeenti téeméer ni ko am ko waxee démb mu Khadim Sylla bi muy bind bi muy bind tees bi mu gëstoo ñeenti téeméeri dëkk yoo xam ne yoo xam ne maanaam njabootu sëriñ bi ñoo ko sanc muy seex yi mu joxoon ndigal maa maam mbooleem daal ñoo xam ne ay ay murit lañ kon loolu ba tey ci njariñu lim jële fii la bokk bokk na ci nag Euh, njabootu Sénégal gi nekk fii ci Gabon ci ni leen ko mën a misaale rek nga xam xamu leen ci ñoom lenn lu dul tege ci yoon rek jaamu yàlla ak liggéey bi ñuy liggéey ak taxaw seenu sëriñ kon daal ñu bañ a guddal mën nañ ko yemale foofu ci biir délégation bi itam maa ngi tudd sëñ Cheikh Fall mi nga xam ne mi ngi ànd ak ñun ñëw jàppale sëñ Cheikh naa ñoom ñu ci liggéey bi mooy itam ñu ngi koy nuyu di ko rafet lu baax ak mbooleem mbooleem ñi fi teew ak ñi teewut ñëpp daal ca ñoom Maayomba ñu ngi leen di jot li seen nuyoo waaye ñoom ñu ngi leen di sant bu baax ci turu xalif général des mourides Cheikh Amadou Mountakha di ñaan lii nag ñu yàgg koo def yàgg leen fee fekk ay yu bëree bëri ba yéen a jigéen ci am ñun ñu am ko ci suñ borom àggalee lañu wax kon nag jërë ngeen jëf. Serigne Bassirou vous adresse ses salutations les plus chaleureuses au nom du khalife général des mourides Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké et au nom de toute la délégation qui l'accompagne, ainsi que le comité d'organisation de la caravane de Mayumba sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Le comité qui abat, qui abat un travail remarquable dans la vulgarisation du message de Cheikh Ahmadou Bamba ici au Gabon. Aussi, adresse-t-il des salutations chaleureuses à l'endroit de monsieur l'évêque, le colonel, le maire et les différents dignitaires ici présents. Et il vous fait part de son sentiment de fierté, de l'accueil chaleureux qui lui va droit au cœur. Après les innombrables vicissitudes de notre tournée, de notre voyage, de notre périple depuis Libreville, nous nous sommes confrontés à beaucoup de peines. Mais toute cette peine a été adoucie grâce à votre accueil chaleureux et les mots sincères qui sont venus de votre part. Il vous dit merci beaucoup. Donc ce lieu, Gabon, est un lieu qui un symbole du mouridisme. Parce que tout le service que Cheikh Ahmed Bamba a rendu au prophète pour la libération des communautés, pour l'altruisme, pour le don du soi, il l'a effectué ici au Gabon. Mais il faut noter que le cheikh, selon ses dires, il n'était pas venu ici au Gabon pour parfaire sa foi. Il avait déjà un foi parfait. Il n'est pas venu ici pour parfaire sa pratique de l'islam. Il n'était pas venu ici pour purifier son cœur. Tous ces bienfaits, il les avait déjà obtenus lorsqu'il était au Sénégal. Mais ici au Gabon, il a bénéficié de ces trois choses. connaissance pointie et approfondie de son Seigneur. Aussi une certitude entre lui et la majesté de son Seigneur, le Créateur. Mais il a, il a aussi bénéficié d'innombrables bienfaits sans méfaits. d'innombrables bienfaits infinis qui nous couvrent tous jusqu'à la fin des temps. Donc, Gabon représente beaucoup pour nous. Malgré qu'il la rencontré des difficultés ici, des torts, des tentatives de lui ôter sa vie, mais il s'est armé d'une patience ardente d'un amour envers son Seigneur qui était ses armes pour vaincre tout cela. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il était venu ici en 1895, après un simulacre de procès qui a été organisé par l'administration coloniale, dont le seul but était de l'accabler et de l'exiler au Gabon, qui était pour lui un pays lointain. Parce que c'est le cheikh lui-même qui nous décrit le contexte du Gabon à l'époque. Il était loin de chez lui. C'est pour cela dans, un de ses écrits, il disait Qusuri qalat wal ahlu anni tafarraqat li madhi alladi hanhul madihu qasiru mes demeures ont été délaissées ma famille dispersée pour rendre service pour œuvrer pour le prophète pour œuvrer pour la libération des peuples pour œuvrer pour le salut des communautés donc vous voyez le contexte dans lequel Cheikh Amadou Bamba vivait. Et le sentiment qu'elle avait, un sentiment de solitude, un sentiment de non-secours de la part des chefs traditionnels qui étaient là-bas, des chefs religieux qui voyaient en lui un concurrent direct, De même, les tenants du pouvoir. Donc, ils l'ont mis dans les mains des ennemis dont le seul, leur seul but du matin au soir, c'est comment le châtier. Comment lui ôter sa vie seulement pendant sept ans et huit mois. Mais le cheikh a réussi sa mission. C'est ici au Gabon qu'il a proclamé que mon Seigneur a fait de mon exil au Gabon l'exaucement des vœux de toutes les créatures et dans les domaines de, dans tous les domaines de la vie. Donc il était venu au Gabon pour rendre service aux humains, pour que les humains aient leur salut et leur liberté. Donc le message a été clair. Donc il nous incombe à nous de transmettre ce message au peuple du monde entier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le chef peut-être qu'il est sorti de son territoire de manière volontaire ou involontaire. Le cheikh lui-même en a parlé. Le cheikh n'agissait jamais contrairement aux préceptes et aux guidances de son Seigneur. Parfois, il arrivait que le blanc lui donne un ordre et il refuse parce que son Seigneur ne lui a pas encore transmis l'ordre d'exécuter. Et ceci a débuté depuis la première rencontre entre le Cheikh et le Blanc à Djéwol au Sénégal. Le commandant Leclerc lui a assigné l'ordre de partir tout de suite le suivre. Mais Serigne bi, Cheikh Ahmadou Bamba, a décliné l'offre, disant que je n'ai pas encore reçu l'ordre de mon Seigneur de partir. Mon Seigneur m'a ordonné de passer la nuit ici et je vais la passer. Et les choses sont passées comme il avait dit. Donc, si vous voyez tout cela, vous, allez, vous saurez que le cher, il ne suivait pas le blanc, le colonisateur, de manière irréfléchie. Il voulait quelque chose. Il voulait nous libérer, nous. Il voulait libérer les peuples d'Afrique. Il voulait libérer le monde. Et cela, il ne peut pas l'avoir sans venir au Gabon. Sans venir au Gabon, sous d'innombrables épreuves qu'il a endurées, et lui-même, il disait, plus de 280 épreuves. Plus de 280 épreuves pendant tous ces séjours au Gabon. En ces derniers jours, le Cheikh disait, je vous recommande de vous fier totalement à Dieu. De vous fier totalement à Dieu. Et moi, cher Ahmad Bamba, je suis l'exemple le plus parfait. Je suis l'exemple le plus illustré. Ici au Gabon, <coughs> nous avons traversé le désert. Nous nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous avons quitté Libreville à 9h00 du matin. Et nous sommes venus ici à une Avec des pannes à n'a pas finir sur la route. Si c'était des moyens seulement, il n'allait jamais échapper à ceci. Mais son, sa seule arme était d'avoir confiance en ce Seigneur, de se fier totalement à Dieu. encore une fois Serigne Bachirou au nom de Serigne Mountakha vous remercie nous avons déjà préparé un discours très approfondi pour vous donner plus de connaissances plus de renseignements à l'endroit du contenu profond et original du Cheikh le message, je dis bien, original du Cheikh. Peut-être, dans quelques heures, nous aurons du temps pour faire tout cela. Mais sachez encore que Serigne Bassirou, au nom du Khalif général des Mourides, est très content de l'accueil que vous avez réservé et du grade auquel vous avez élevé Cheikh Ahmadou Bamba. Et cela, quand vous le faites, le faites pour nous tous. Vraiment, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Vous touchez, vous touchez parfois euh, ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est l'enseignement. Avec euh, le professeur euh, Françoise Ecapit. Euh, moi, je suis professeur d'anglais. J'enseigne l'anglais à African University of Management à Libreville. Donc, euh, c'est là où j'ai connu le professeur euh, Françoise Ecapit, qui est votre fille, et voilà, qui fait partie de l'organisation euh, voilà, de cette situation que nous euh, voyons, que nous vivons aujourd'hui. Merci. Dans, cette, dans la mouvance de la joie qui nous anime, euh, la joie de l'histoire, la joie de l'histoire des peuples, la joie de l'histoire des nations, la joie de l'histoire des noms, Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, j'aime l'histoire, c'est pour cela que j'en parle. Et c'est l'histoire seulement qui Au départ, on pouvait penser euh, qu'elle euh, dispersait les peuples. Mais non, bien au contraire, qu'on a vu tout le long de la vie et aujourd'hui, que c'est l'histoire qui rassemble les peuples. Et le chèque nous rassemble aujourd'hui. Bien que nous soyons une petite poignée aujourd'hui, en ce moment, mais nous savons qu'il y a un grand nombre dans le monde de ceux qui ont une oreille attentive, un œil certainement pointu à l'histoire et à l'histoire de Cheikh Abidou Bamba. Donc nous nous disons encore une fois de plus merci. Euh, nous allons marcher avec vous à Mayumba. Nous serons avec vous et nous serons avec le chèque. Et j'ai entendu, certainement que je l'avais déjà entendu, parce qu'avec mes collaborateurs de Mayumba, qui sont même dans cette salle, surtout avec l'ancien maire, Euh, je pense que le terrain est déjà trouvé. que quand je, je regarde euh, notre papa ici, père spirituel, quand je regarde l'évêque, euh, c'est pour vous indiquer la direction du terrain, que ce terrain est à saint Et ce terrain-là sera encore le symbole de l'histoire l'histoire de Dieu, parce que Dieu rassemble, parce que Dieu oui, euh, a dans ses principes euh, la cohabitation qui amène la cohésion. Euh, donc, et dans, sur le plan spirituel et religieux, on dit l'écuménie parce que euh, le lieu où le chèque faisait sa, ses, ses ablutions, eh bien, à Sainte-Odile, à côté, c'est au débarcadère, c'est là où se trouvait euh, le, la bâtisse de don de l'ordre souverain de Malte, euh, qui s'occupait en appui de l'État gabonais euh, de traiter, de soigner euh, les grandes maladies ici à Mayumba euh, que sont euh, la tuberculose, la lèpre, était soignée à cet endroit-là. Je partais, j'y allais parce que j'étais déjà enfant. J'accompagnais ma tante qui avait un peu de lèpre aux orteils et aux doigts. et je prenais la pirogue pour l'accompagner à don de l'ordre souverain de Malte. Et c'est à, ce grand débarcadère, je dis grand dans l'histoire, parce qu'il avait une plateforme qui était étagée d'escaliers de, sur 50 mètres de, de, de long et près de 25 mètres de montée. Et la bagnole, c'est-à-dire la lagune, venait voilà, venez euh, effleurer là-dessus. Donc, je crois que le terrain est obtenu. Ce que nous ferons, c'est le reste, c'est-à-dire l'administration, pour que le terrain soit euh, reconnu parce que ayant euh, un propriétaire sous l'observation de l'Église catholique dont euh, la terre, n'est-ce pas, est euh, assigné. Donc euh, voilà, en réponse, euh, oui, cette demande, cette doléance, je crois qu'il traite depuis bientôt un an. Et de ce fait, je vous demanderai tout simplement euh, qu'on se lève pour descendre. Et euh, je crois que qu'il y a des éléments de la nature qui nous attendent dehors euh, que vous voudriez bien voir. S'il vous plaît. Khalif, je vous remets ce petit fascicule qui n'est autre que l'histoire de Mayumba, de la chefferie à la commune en passant par l'administration et le commandement, le commandement successif. C'est écrit par moi. Je l'ai écrit pendant trois jours. parce que je pensais à votre arrivée pour vous retracer l'histoire l'histoire de Mayumba. Comment est-ce qu'on est parti de la chefferie à la commune aujourd'hui? c'est écrit par le colonel Makosso. joxe nañ ko li ci des mooy ay formalité rek. waaw waaw.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 الخلا وسالك نار الخل لي برما ينبع